population du Sénégal et de Dakar pour apporter wow. leur soutien dans cette épreuve dans le bon combat que nous avons entrepris pour servir notre pays. Il faut que les uns et les autres comprennent que nous avions tous prévu que ce ne serait pas facile ce ne serait pas aisé et qu'il nous faudra faire preuve de persévérance, d'endurance pour avancer durablement mais surtout vaillamment vers la victoire. La procédure en cours est précédée par un tapage médiatique sans précédent pour chercher à dénigrer, pour chercher à ternir une réputation décrédibiliser une personne, une administration. Je voudrais dire aux Sénégalaises et aux Sénégalais que depuis 2009, nous nous sommes employés à faire en sorte que la gestion de la ville soit transparente, soit nette. Et que dans ce qui est actuellement en cours au niveau de la justice. Ce n'est pas quelque chose que nous avons créé. Ce n'est pas quelque chose dont nous sommes à l'origine. C'est une disposition réglementaire, une disposition qui sert au maire de Dakar de venir en soutien aux populations qui en font la demande, aux institutions qui en ont besoin. Vous savez, je voudrais que les uns et les autres comprennent. Il n'y a pas de détournement. Il n'y a pas d'escroquerie. Nous n'avons rien fait qui diffère de ce qui se faisait avant. Nous n'avons fait que continuer une pratique, continuer une des modalités de gestion. Et que je voudrais que les Sénégalaises et les Sénégalaises comprennent que le battage médiatique, le dénigrement ne passeront pas. Nous ne sommes pas des voleurs. Nous ne sommes pas des corrompus, nous ne sommes pas des détourneurs. Nous sommes des gens honnêtes qui avons géré cette ville avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de patience, mais surtout de transparence et de vertu. Surtout, c'est le mot que je cherchais. Et que donc, euh, aujourd'hui, c'est une première étape. Demain sera une seconde étape. Demain, je serai là à 11h, Inch'Allah. Voilà donc dama bëgg waa Sénégal ma gërëm leen sant leen wax ne li ñuy dund biñu ñu ci biñu santé yalla julli ci yonent bi ba paré lo xamni la bettewul parce que ñepp xamni ni li ko wunda mooy li sumba lii nga xamni mom lañu dor depuis juróomi fan Nan ay détournement ay fausses factures ay corruption ñi koy wax ñoo gën a xam lan mooy caisse d'avance du ñun ñoo ko sos 1920 ba léegi Blaise Diagne ba Lamine Guèye Samba Guèye ba Mamadou Diop ba Pape Diop lii daf fi nekk ni muy doxe ñun dindiwuñ ci indiwuñ ci nii muy doxe lay doxe li tax nag muy doxe noonu mooy luy jëriñ askan wi la ma li ci nekk amul lu ci nit jël amul lu ci nit lekk amul lu ci nit nëbb loo xam ni la pour ñoo xam ne dañu soxla ndimbal dañu soxla jàppale maire bi jàppale leen su fekkoon bañ waxtu rek nekku ci ma dërëm buñ ci dugal rek xam nañu fan la dem ci kañ la dem ñaata la ak nan la fa dem donc may dalal xelu askan campagne de dénigrement bi ça ne passera pas parce qu'on se laissera pas faire kenn mënul suñu der nous parce que defuñu fi ne jiwuñu ko askan wi man d'accord na ngay politique mais faut se battre avec des armes euh, euh, loyales loyales mais yàq der tuumal sos te ñi wax caisse bi ñoo ko gëna xam ñi wax ci caisse bi la xam lan moy caisse bi ak nan la bi donc euh, li ndor be tey déglu nañ ma suba ci 11 wowaat nañ ma daañ ma déglu incha allah lu ci mënta ne daañu indi leeral yi nga xam ni moo am solo li ma dul def rek li ma kenn mënul def loo parce que ñëpp ñi nga xam ni dañu ñëw wut soxla laaj liggéey ak ñun ci kees boobu ñooñu dañ ko defoon ngir kóolute dañ ko defoon ngir euh, yaakaar dañ ko def ci sutura surtout dañ ko def ci sutura donc ñooñu dañu bëgg tey parce que xam naa ku nekk nag xam naa ku nekk képp foo xam ne dërëm bu nekk fa mu dugg xam naa ko xam naa ci dem mais man gor laa man kilifa la métit ak coono du ma imposer may wuññi loo xam ne goro goro ko seqoon donc daañ fi ñëw suba 11h tontu lu ñu def rek ñu jàkkaarloog moom. maa ngi gërëm ñëpp maa ngi sant ñëpp yàlla na leen yàlla fay merci beaucoup.